parce que bëgg nañu xoqatal ñu arrêté Ameth oto biñ ko arrêté jël permis maa ngi dégg ñu jël seen waxkat yi naan leen Ameth Ndoye daf doon dawal sans permis lii parce que il faut il faut ñu leeral sénégalais yi lii attestation biñ jox Ameth Ndoye biñ jëlee permis yaa ngi dégg numéro permis bi mi ngi fii wala numéro permis bi mi ngi nii ñu bind ci lii mooy attestation bi ñu ko jox lii mooy bi ñu ko prolongé attestation bi mi ngi nii danañ ko photocopier jox ko juda ba ngeen xam ni dañ ko jël permis attesté ko permis de conduire numéro dix 10 82 76 37 mi ngi nii permis de conduire attesté ko jël permis de conduire am mi ngi nii yéen ñëpp ngeen gis biñ jëlee permis de conduire am jox ko attestation biñ ko joxee attestation mu dem pour jël permis parce que loolu yëpp leen rek tax ñu def ko lii lañ bëggoon empêcher maanaam toog bii ñu toog ak fii ñu jëm ci Sénégal ñoo mënuñu ko nangu te lii il faut xoolal képp ko bañ génnal Sénégal parce que toog bii maanaam gàtta dure bu gàtt durée bu bi gën a tuuti bi mu mën a am toog bii mooy vingt ans il faut nit ñi il faut loolu mooy il faut mu dugg ci biiru nit